was es for? jërë ngeen jëf mbokk internet seen lamb TV mbokk yi ñu ngi man mbégte ak contentement jàkkaarloo te géen mbokk yi tey nag ñoo ngi fi géejawaay certifié benn doomu géejawaay le grand champion doomi mbër jàngil bëre rek Balla Gaye 2 Sa Thiès ah, moom la ñu seet tey fa seen waxtaan ak moom waxtaanu làmb waaye fas yéene waxtaan ak moom si match Sénégal bu weesu bi waaye aussi tamit ku nekk xam ne ni Sénégal da war footballaat suba incha allahu rabi suñu diggante ñi nag Qatar ah moom yaakaar naa sport moom lépp football rek lay seetaan donc gis sax muy seetaan naa marché bi war na mën teg classement bi bu Aliou Cissé war a joxe suba incha allahu rabi waaye bu leen fàttali tamit Khadim Ndiaye démb ay sortie yu bëri da daan wax ni bu Sa Thiès daanee rek rek moom Khadim Ndiaye man na lekk xaj waaye démb gis nañ ni mu génnaat waxaat leneen ni moom musul wax loolu da ngay lekk ak du lekk wala moo waxoon wala waxul ma man naar naar yaa ngi nu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu gën après ñu waxtaan ak moom saa maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw gannaaw bu ñu mosoo ci seytaane ñu ngi sant yàlla baax di jëli ci yonte bi sant suñu ñaari waajur di war a jiite sax ci kàddu bi ñu gën a àdduna ñëpp yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana ñu tëdd hôpital ussi yàlla yëkkati leen caabi féete ginnaaw aussi caabi féete leen kanam yàlla ñu defal jàmm du nuyu kilifa aada yi ak kilifa cosaan yi rawatina li ci suñu dëkk yi nga xamante ni mooy dëkk yi sell yi di Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane Thiénaba bàyyiwuñu fenn ba ci Yoff Cambérène gii si aussi euh, di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim di ko ñaanal yàlla dëgëral ko bàyyi ko fi yàgg fi ak mboolem jullit ak suñu waajur yëpp ci barke alxuraan. keroog si nga match Sénégal yaakaar naa ni keroog football nañu ak Pays-Bas match bu metti woon bu compliqué woon. mais yàlla suñu borom si mbaaxam si dogal la mu jox Pays-Bas ndam si diggante Sénégal ak Pays-Bas match boobu jàngatee woon. waaw métti na ci bépp sénégalais kenn ku ci nekk xam ne sport mu wàllu xëccoo la rek mais ñett rek lay gunge mën nga ci am ndam baa nga am ci defet baa nga match nul ci. comme nag Zouba moom yàlla ñu cërale defet bi dañ koy nangu abseté ko rek xëy na dese nañ ñaari mas peut-être euh, am nañu joueurs yi yi tax ñu war a mën a sori ci kan bu baax a baax a baax am naa yàq yu nii seen i moroomu góor rek ñoo ne ci terrain bi ah. moo xam ku ko mënta jëlit yàlla na doon ñun rek waaw. gars yi duñ dañuy taxaw taxaw seetlu wala poser question lan moo waral quatre-vingt-dixième minute de jeu wala quatre-vingtième minute de jeu ñu dugal ñu temps additionnel ñu dugalaat ñu ñu bëri ni problème de coach la loolu da koy dëggal wala. waaw ah, si foofu moom coach bi mooy matale parce que man wàllu mental xam nga jour yi tey moom mënuñu temps bi Aliou am ci football. ñi ko doon jàngal di ko répéter jour yi amuñu ko te mooy seen jiit aussi xëy na moment boobu moom dëgg la soo mënul dugal da nga gérer samas mas bi jeex nga jël nii lan moo gën nga jël defet waaw. nga jël moo gën nga jël si. ñun moo gën defet waaw léegi léegi ñu jëmaat si match bi nga xamante ni yaakaar naa mooy mooy mooy moo ñuy gën a confirmer ni war nañu mën a sore si li nga xamante ni mooy mondial bi suñu diggante ñu nekk Qatar yaakaar naa loolu suba incha allahu rabbi la heure dana fekk mu jeex si jàmm tey ban classement ngay proposé Aliou Cissé yow boo doon proposé Aliou Cissé classement encore daal ñi ma bëgg mu fubal ko mooy euh, ku ci mel ni Iliman Iliman war naa mën a dem moom ak euh, Iliman Diaba mm-hmm. moom laa gis ci kaw euh, ak euh, suñu neuf bi euh, Boulaye Dia Ba moom moom pointé pointé euh, Ismaïla Sarr aussi tamit mu nekk ci beneen bi waaw aussi tam il faut mu jël moo xam benn xale wala ñaari xale parce que gars yi foo ñu teg les pression waaw beneen bi ci des mooy Pape kii défense moom franchement parle baax na waaw mais souvent moom lu ma gën a te Pape am ah, mën na football mais bu dee sama sago Pape Ciss lay xaarloo Euh, Diallo ak Jacob bari ak euh, kii waay Sabali waay ñoom ñu géré ko deuxième mi-temps moom mu dugg jekkali gaay waaw militaire yi moom dëgg yàlla ñett siis moom bu doon sama sago mu changé ko aussi mu mu jël paate comme mën na may chance aussi tamit euh, kii beneen booy bi kii waay numéro 17 bi ah Pape Matar Sarr pourquoi mënu dugg soit que dugg sax mën na dugg waaw même bu mënul dugg premier temps deuxième mi-temps mu teel dugg waaw comme parce que ñett sisi moom day xaw a compliqué waaw ñetti waaw buñ ne bu ne ñetti nit ñu bokk benn xam-xam mm-hmm. dafay xew a waar parce que tubaab bi léegi moom daa daana ko ñu ngi jël euh, ñett nit yoo xam ne bokkuñu xam-xam ci bi terrain mm-hmm. kii taakale yu métier mm-hmm. kii passé muy métier kii technicien yi muy métier kon ça veut dire loolu lépp aussi war nañ ko am te Sénégal te war nañoo bàyyi xel ñu wut dix fixe ba léegi amaguñ ko dix fixe. Fadiga. waaw amaguñ ko Sofiane Diop war nañoo mën a fexe ba mu ba mu ñëw Sénégal waaw parce que boobu dix numéro dix mais am nañ équipe yi tax rek ñu avancé ci football. yaakaar daal yaakaar naa ni poule bi war nañ si mën a génn waxumal sax mais war nañu mën a sore ba jëlee li nga xamante ni moo ñu fa tax a dem. muy coupe eh, mën nañ ci sori en plus di ñaanal euh, Sadio Mané aussi yàlla mooy may ko wér. waaw parce que bu dul dara mooy suñu fierté beneen bi ci des tamit di ñaan rek sëriñ si nga xamante ni chaque jour ñu ngi wax chaque jour rek ñu ngi wax waaw ñu ñu ñu bàyyi xel ni euh, ci seen réew lañ nekk te tey jii lépp loo fi wax lu baax rek am na ñoo xamante ni baaxu ci ñoom lépp loo fi wax ci lu bon rek daana ko ci nga yëpp problème di taalal loxo rek ñoom ñëpp ñu jàpp ci te yàlla tax ndam nag yàllaa ko moom mais bu ñu xàccandoo yi dóorandoo rek yaakaar naa dinañ sori parce que Coupe d'Afrique bi rek mën mën na mën yeeku ne franchement parlé waay coupe d'Afrique bi ñëpp a déggoo ñëpp a déggoo doon benn mais lii boo amee rek benn instant tamit da ngay gis sax yow da ngay rey moralu nit ñi xam nga du ñu waaw dañu gëmloo tamit xale yi tamit sans Sadio Mané war nañu mën jël coupe bi non na ñoom ñoom joueur yi loolu loolu la engagé joueur yi la engagé parce que tamit euh, ñun mën nañoo taxaw ne sans Sadio Mané est-ce que dañ dem ñoom ñu taxaw ne sans Sadio Mané dem lan moo koy firnde mooy bu ñu duggee terrain ñu wane ko su boobaa ñun nag ngëm-ngëm la ñuy am kon sans Sadio bi war na mën a fonctionner waaw loolu moom wàllu trésorerie yi la quoi. am na solo mi ngi noonu euh, nga jëm combat bu am solo gars yi tuddee sa combat capital sa diggante Reug Reug que yàgg na dugg yaakaar naa Guédiawaye ravage dafa ravage waa Guédiawaye presque daan na fi ñu bëri macha allah tey nga jëm si comb seen combat yéen ñaar lu yàggul dara ñu gis benn vidéo bu fuité nekk ci TikTok bi mini Sa Thiès dafa am li nga xamante ni moom la ko combat bi jaral te waa caaro yi xamuñu si dara. waaw man daal l'essentiel combat bi jaral lu may wax ay jëf rek la ma jar te monsieur maa ngi ñaan yàlla may ma ci ndam ci barke alxuraan xëy na bëri na coow chaque jour combat may combat soog bi gën a nekk waaw combat xale la mais nañ ñaan yàlla rek liñ ci séntu mu am ci waaw parce que tamit combat xale la mais war naa mën a neex waaw fi ñu ko nit ñi di xaar aussi war nañ fi mën a yegg te yàlla ñu ko yàlla moo tax la ñu yegg ci jàmm. non non. bu baax. waaw may dégg tudd turam de. waaw oh, di ko dégg sa tudd turam loolu dara mais comme nit ñi li ñuy bàyyi xel ci moom pour ma xam ko ci moom loolu moom intéressé wu bëri bi ak côté mystique bi aussi dama dégg naa sa communication yu bëri yow dafa bëri li ngay wax côté mystique bi dafa mel ni ngay xaw a bàyyi xel côté mystique bi. non non man maa ko installé na ko mu bañ a jiital mystique. man maa ko gisee ci loolu. Ah, ah, dafa dafa mel da nga koy da nga koy parce que day wax ne ma damaa dugg këram affaire yooyu xam nga dañoo bokk sëriñ te xam nga Sénégal dafa xat. ci li wax waaw Sénégal gi dafa xat ah. di nga fi gis lu ne di nga gis mu ne waaw mais li ma intéressé mooy sama ndam yi ma am yëpp fàtte naa ko bi sama kanam lay xool su ma paree xool la leen man noonu lay dundee daan na ay nit nee na daan naa ni tey caaro yi waaye fàtte naa sa ñu ma fa daan man loolu intéressé du ma li sama kanam rek moo ma intéressé. kon mën nga askan bi waxuma sax sa waa askan bi mën nga leen convaincre ni man Sa sama digganteeg Reug Reug mois de mars daañu bëre te daañu xeex. ci àllande ci condition ñu sabablu ko. Reug Reug moom kaay xale bi gis naa ko fee de waaye xaw ma muy def lu métti. looloo baax njëriñam la du sama njëriñ. mais ñu bëri dañu dañu taxaw posé question ni Sa Thiès est-ce que Reug Reug moment ko ëpp doole xaw ko sàcc doole tuuti ñooñu loolu di wax. amoon la ma ci wax bañ simmeeku bu yàlla defee na bañ jàppante bu combat bi jeex dañu xam ko ëpp doole. yow foo teg ni 25 combat yaakaar naa. sama ngëm-ngëm laa teg dégg wax naa leen ko soo nee naa leen bu leen jël wax di ko yuufu maagul dama ne sama ngëm-ngëm man laa wax xam moom dafa ne moom nangami Sa Thiès moom moo leen mën man am naa sañ-sañ taxaw ne carrément sama nangam nangami Reug Reug xam ah, loolu dong la da ngay génne yow man su ma génne est-ce ma attan bàyyi ma toog fii rek. <laughs> boo génne est-ce que nañ la nga boo ni nga toll moom macha allah yaa ngi si forme xool moom yaakaar naa ni su waxee te yàlla tax rek xam ni yaa ngi si forme. nekkuma ci dara nekkuma ci dara. ci dara. l'essentiel daal moom maa ngi sama toog maa ngi ma nekk doy na ma sëkk sëkk sëkk waaw. dégg ne sax ñu ngi saa kees entraîné na gul Saint Umar lay jàppale nii rek mais commencé gul moom entraîné. accord daal combat boobu laa tal su weesoo loolu nag après sama bët moom mën naa ko teg sama laamu ji moom. wax naa ko léegi Xarim Ndiaye waxoon na boo daanee rek rek moom pare na pour lekk lu dul xaj. waaye ngeen baal ma bu leen na Xarim Ndiaye ndax Xarim tur bu dafa sell dafa lu liiru jaan wax te bàyyiwuñ ci xel moom yàlla fa def méritowul waa jooju moom laa dama ne moom di yàlla fa def méritowul sax turam boobu waaw gis nga kilifa dafa am nu ko yàlla cëralee. Max Margan kilifa la mu ngi caaro doo ko dégg mu xalab kenn te coono yu mu am ci mbër yooyu moom defu ci dara ci mbër yi yu dëgg ñaata mbër li fi dajale ay Sita ay Tidiane Faye ay Baye Mandione yëpp def naa jaar nañ ci loxom ay nees fëgala ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mosoo gis mu xalab kenn kenn kenn kenn te monte li war a def mi ngi koy def moom de roykaay la gaa moom Maxaan roykaay la de wax dëgg yàlla waaye as jullit yor tur bu sell amoo lay naataable sa bopp di tudd sa tur di ci teg wàllu xaj man kooku nawlowuma la ci dara xam nga lii jaan la moo tax mu neex ma. moom liiru moom liiru moom sama grand bi àndul ak nit ngir intérêt xaarul ba mu neex mu ànd ak yow liiru jaan ba muy metti mi nekk ak xale yi miy neex mi nekk ak xale yi ñuy soox mu nekk ñun ñëpp mbër géej yëpp nag laa wax ba yàlla def tey yàlla di def bànneex tey ñëpp di ci teg suñu bët kooku mooy as gor as gor da jàpp lii ba muy nekk lu ndaw ba muy jóg tey ñu xam ne yow mii sa loxo da cee defoon bokkul ak kii ngay wax nii lekkat xaj bi du ma tudd turam parce que nee naa la jomm naa jël tur bu sell di ci teg lii ma lay wax. waaye moom nee na moom woon loolu de yow looy si loolu. Ah. mag la daal foofu rek laay mag la. kon daal nga gis ni moom comportement bi mu yor si làmb ji maanaam amaan na mënoon na yor beneen comportement bi nga xamante ni yow Sa Thiès mën nga ko naw wala keneen ak keneen nekk si làmb bi war na ko mën naw loolu comportement bi mu yor. melukaanam neexul kenn du royukaay du idole. doomu dama koy wax mu mel ni midi tey jii bu fekkee da ngay tànn kilifa ci biir euh, euh, déedéet ba làmb làmb day sori bu dee bu dee làmb la doo ko ci dégg duñ fa teg sax côté boobu su fekkente ni tey jii dañ ne da fay da jël caaro yi googu di fa jël kilifa ñëpp ci mar max margan lañ jëm waaw point final lu weesul max kan am na yéen ñi fa nekk isaapu yi foofu xam mu ñoon ñu foofu Xaadim Njaay numéro 2 mi ngi foofu Ousmane Diop mi ngi foofu xam nga ñoo bokk seen ndey ñoo bokk seen baay man du ma jaxase nit du ma du ma dugg ci diggante ay ay ay doomu aadama man duma xaajalee nit ma dëgg yàlla parce que bëgguma man it ku xaajale samay mbokk waaw mais nag tàmm naa yor ay kilifa ñu naw leen ñu roy ñu doon royukaay doon idole ngir wax ju rafet ngir jëf ju baax paa bu toogee fii nga ñëw fii kër buntu kër buntu kër jàmbur ñaanaatu foofu soo toogee tey foofu di ko xalab ban sens la am dafa am yoo xam ne sax boo demee ba toog da ngaa war a yedd sa bopp baax a a baax. am am na solo macha allah na solo pour ñu bañ a sax si débat boobu parce que yaakaar naa li nga si wax moom leer na nañ tey ngeen jëm la première waaw parce que nag lu waaye gàtt gàtt xam ne le premier janvier Balla Gaye de war na bëre kii di Boy Niang foo leen toll si wàccaay bi ginnaaw bu ngeen ñëwee keroog 2STV yaakaar naa indiwaat beneen xar-xaru kanam indiwaat beneen forme bi nga xamante ni bett na képp kuy sénégalais lan la. sant yàlla rek liggéey rek toog suñu rukk xam lañu war def ko pare nañ daal yàlla rek a ci des te ñu ngi tàll suñu loxo ñaan yàlla yàlla may ñu daal waaw loolu daal laal la ci mën a gàttalal parce que wax ji moom mën na bari mais suñu côté mukk ñun ñu ngi dénk yàlla suñu bopp rek ci barke Yonent bi ci barke Serigne Touba ci barke Serigne Fall aussi di ko denkaat suñu bopp baax a baax a baax mu sàmm ñu ba le premier yàlla may ndam Balla Gaye la cinq mars yàlla may ma ndam combat bi nga xamante ni moo ko Eumeu Sène bi aussi tamit waaw combat boobu it encore yàlla mayaat ko ndam ci ko Eumeu Sène ñun loolu la ñuy ñaan combat bi moom mën mënatuñu fee nekk wax ju bari ndax loo wax rek gis keneen ko ci waxaat. def nag nga gis ko defaat waaye jëf ji nag moo ci am solo Balla gay pare na ko xool xam ni carrément bala Gaye bii pare na waaw ñu ngi sant yàlla ba macha allah. booy ñaa nee na moom lu war ci combat bi jour boobu moo ko def nee na yéen ngeen ñëw rek nee na ngeen déparé golf wala xam foo leen mën déparé comme moom daal joxe na consam jël nañ ci une minute ñëwaat ci cinq ñu ngi leen toog leen déglu rek. nga jàpp dafa changé. non non de dama ne. comme ñoom ñoo newoon une minute ñëwaat ba cinq minutes su xaw ma nag yokkaat nañ ko déet. cinq minutes la ñu mujj wax. waaw la mujjee wax yàlla bu mu changé balaa boobu. des na waaw dafa changé. ku jóge une minute lan ngay def ci cinq minutes. parce que bëggul bëri balla bu mu bu mu bu mu. laa jëkk dama ne la ku jóge ci une minute lay def ci cinq minutes. amaana lu mu bëgg xam laa cinq minutes la nekk rek. déedéet dama ne la ku jóge ci une minute lay def ci cinq minutes laa la laaj. question boobu ñàkk xam moo ma la koy laaj. waaw comme xamoo nag kon bàyyi li la ma wax ma àggale ko mu jeex l'essentiel moom mooy ndaw ci lu ñu wax dañ diriger mu xool l'essentiel yi ndam rek la ñu soxal li ci des ñu bàyyi ci loxo yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam ci barke alxuraan. dellu na France yaa ngi gis ay vidéo am yaakaar naa ñu commencé circuler ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ay sens yi ko woo xool moom tamit xam ni combat bi am na lu mu jaral parce que boo déggee ci Balla Gaye ba ma ba ma xamul laaj ma kooku toog sa ginnaaw mu mel ni kon loolu yaakaar naa yow lay waxanteel mu mel ni combat bi lu mu leen jaral yéen waa géej waay jaral na fukk waa Pikine waaw parce que ba ma daanee ba léegi amul ndam moo tax chaque fois man man lay wéeruwaay loolu moo ko sonal euh, mais loolu bref man parce naa ci ba ma daanee yàlla def na man wërbiti naa am naa sama sorti daan naa moo am na deux sorti mën ta daan man pare naa ci loolu maa ngi ci leneen mais toog fi nga toog di wax taxul nga mën a jëf tafatin barki dem def na fi benn sorte léegi la mu wax yéen la ngeen ci wax ci moom demee ngeen posé ko ci question ci côté boobu waaw a la dëggeer taxawoon ngeen fi ñu wax ko day demal la dëggeer da koy daan ana mu fa lañ mujje contre tafatin bi ñu ñëw waja waja waat waxaat loon après fa lañ mujje waat waaw mais yow da ngaa baax Balla Gaye pare wut de day Balla préparé wut de waaw ñaa dafay dem préparé ji ah encore daal Balla Gaye génnu dëkk bi mi ngi fii toog di li nekk ci rukkam xaar bis sa na yaakaar naa combat mag Lac de Guiers la combat nga Siteu du moins yaakaar naa instant yi amateurs yu soxla nañ ko ba si sax soxla nañ ko muy Lac de Guiers ak Siteu combat boobu aussi tamit yaakaar naa ni jamono ji bu ma juumul tey loo si wax. ah dama ne ñor na de ku dee ak sa bàmmeel. ñor lu tax. merci. buñ ko tegee ci palmarès. la mun leen a boole. xam nga ni ku ba ni ku ne da ngay wax dëgg te yàlla rek tax. la de Guiers war naa mun a bari ak Siteu loolu d'accord naa ko parce que xam tax dañoo dépassé ñoom ñu toog seen biir di bëri ñun ñu dépassé toog suñu rukk di bëri bu complexe dañee wax dëgg jot palmarès boolewu leen mais làmb nag moo doxalee nii te distance bi nga xam ne distance bi am ci diggante moo la de eh, moog la de tey bu amee kenn ko xamee mu ngi ci suuf di ko laaj góoma dina bëri moom sa normal si te daan Papa dem bëri la de ni ñoom pare nañu ginnaaw bu Lac de Guiers taxawee ni pare na pour jox Siteu lii licence am ñoom pare nañu mu mel ni kon combat boobu yaakaar naa saa instant yi jot na jot na sax laa wax pour Lac de Guiers ak Siteu bëre. nañ ci génne xaalis rek. jox kay mooy am jox jox Lac de Guiers. Ah, loolu mooy wax parce que Lac de Guiers ak Siteu loo leen fay ci làmb jar na ko mm-hmm. parce que Siteu day dundal làmb mm-hmm. day mobiliser mm-hmm. waaw moom làmb du ko bëgg kon nag kuñ jar ku ku ku. ku làmb di bàyyi xel aussi franchement parler waaw goor góorgóorlu ci laay fam góorgóorlu ci avenir am yàlla mën na ko jàppale mais nag bu yàlla defee combat bi taxaw maa ngi ñaan ne yàlla may ko ndam aussi sama rakk tamit day bëre di euh, fils maa ngi koy ñaan yàlla yàlla may ko ndam. am na solo fii la tëjee njabootu làmb ga làmb temps yi am benn genre polémique bu am entre euh, ñoom Modou Mbaye ak si affaire de pay-per-view ñu gis ni sax mu mel ni PPV bi am na ñi nga xamante ni yaakaar naa si làmb arrangé wu leen arrangé na rek arrangé wu leen ñun loolu ñun moo wax dëgg yàlla dara lu wóoruñu si mais damay taxaw rek nii PPV bokk na si li nga xamante ni maanaam sponsor leader la si promoteur buy tëgg combat parce que en humanité ku nekk xam ne ni sponsor yu bëri dañ dawoon mais bu ñu dawee PPV moo ñëw commencé jàppalewaat promoteur yi bu ñu commencé gis seen bopp tey problème boobu am seen diggante yow en tant que mbër noo ko gisee ak noo gisee waaw man na bu ma doon Modou Mbaye jour bu ma koy wax damay invité ay promoteur invité amateur invité manager ñu sekk waxtaan bi dinañ trouver solution te coow li may dégg du demee ni parce que àdduna fu gudd tànk yow li ngay li ngay jàpp ni moo baax ke mën na ko jàpp ne baaxul sa promoteur bi moom moo da ba la fayee fukki dërëmam ñaan na yàlla am ci ñaar fukk ak juróom te yow mi mbër bi kay bëril war nga am yéene defal ko loolu wala nga ñaa ngi ko sax mu am ko lamb dafa metti jël sax ay millions jox ko mbër nga yaakaar ci billet sponsor yi daw na mais bu yàggee kenn dootu tëgg lamb kenn dootu tëgg bu ñëwoon nañu war a ñëwee PPV bi est-ce que na fa amati cër <laughs> waaw sama zone bi daa mel ni moo daanu de. Euh, am na plan ci yaakaar naa de. plan ci la. laalu bal bi kay du penalty. laalu bal bi continué sa zone bi amul oh. penalty mhm. bi ci des. ñu waxtaan seen biir rek. ñu baalante àq ah. waaw li ci des ñu ci loxo yàlla parce que na mu solo. Mm. muuru xale la. burul dara ba dara daa bokk ci laam ndax am na fu nga ko jëlee ak fu ko yóbbu waaw kon loolu ñu bàyyi ci xel papaam it am na lu liggéey ci laam mais promoteurs yi dafa am tamit li ñu bëgg ci laam na ñëw rek waxtaan ak ñoom ñu baalante ak ñu ko ni seen liggéey waaw loolu mooy l'essentiel bi. am na solo looy tàggatoo kontaan nañ sew di sant ñëpp di gërëm ñëpp. bu fexee loo xamante ni dafa dabade ñu ngi jégalu baax a baax. bu baaxee ni ñu xam ci loxo yàlla la. di ñaanaat ñëpp. yàlla defal ñu càmm. maman. maman waaw maa ngi koy nuyu baax a baax sama supporteur baax bi. di nuyu sama fami ñëpp. di ko dalee ci malal jàpp ba ci suuf famille saako yëpp. di ñaanal son papa yàlla may ko. jàmm foofu ma nekk ak mboolum jullit ji fa tëdd waaw tas ñu ci barkeem aussi yàlla dafa ñu tawfiix dafa ñu taysiir problème ak naqari tiis yi fi am yëpp yàlla teggal ko di ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ndam ci combat jëm di ñaanal suma boppit yàlla may ma ndam ci barke alxuraan di ñaanal si suñu carrière li suñu kanam yëpp dàq mbër géejawaayam combat yëpp yàlla may leen ndam ba ci sama rakk bi nga xamante ni moo fa nekk di baalu àq ñëpp di baalu àq di wax nag di nuyu aussi tamit comme ñi may jàppale Pape Mama Moussa Fall Andaw saajo Sadio Gambi voilà <laughs> sama dugal <laughs> xam weesoo loolu di nuyu Gambi di nuyu place yu ma nekk place Gabi la Café Bira waaw fii nag dañuy toog fii ñëpp benn lañ ndax suñ koñ moom amuñu sens interdit franchement parler lu ñii la ñuy doxee du nuyu aussi tamit sama benn waay bu ñu naan euh, Assane Assane marché bee sa dëkk ni ko baala moom itam may taxaw ni ma jàppale di nuyu ki nga xamante mooy <coughs> baal ma de maa xaw a corxaan rek jiwiloo aussi maa ngi koy remercier bu baax a baax di ko sant di ko gërëm sayer xama di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi may jàppale te xaw ma xaw ma sax fa di gërëm aussi tamit kenn koo xamante ni ku baax la ci man mi mbay tudde waaw ngi koy ñaan bu baax a baax a baax a baax yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla sàmm te na ko yàlla aar moom xam na man xam naa yàlla xam na ñi ma nekkali xam nañ yal na ko yàlla sàmm yal ko yàlla delloosi yàlla na ko yàlla yër li mu bëgg yëpp yàlla ko yàlla suñu borom defal ci barke alxuraan euh, beneen bi ci des nag sama xarit yi may ànd yëpp mi Bira Badara commissaire Séni euh, commissaire wax naa ko <laughs> Simel xaw waaw di nuyu ñëpp ak mafia bi di nuyu sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fii ak yaay ñëpp waaw di nuyu ñëpp daal di gàllu nuyuwaat baax a baax a baax sama sëriñ Cheikh Abdou Karim maa koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal bu fan. ak kilifa diina yëpp nag di gërëm aussi Aziz Ndiaye Baye njaay Kor Ndiak Masata famille Ndiaye yëpp maa ngi leen di sant bu a baax a baax ku juum mais gërëm naa ñëpp waaw sant naa ñëpp yàlla na yàlla fa jàmm waaw. dégg nga ñëpp. waaw dañuy xaar subi incha allah rabbi suñu suñu borom may ñu ndam. waaw jeex na. incha <laughs> ngi noonu. Euh, eh, Sa Thiès tey lañ jël si woon mbokk gis ngeen waxtaan moom euh, commencement bi marché bi la ñuy moom dégg lu mu wax si marché bi kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi subi incha allah rabbi yàlla may ñu ndam yow mi may seetaan abonnel bés frais de notification yi di dugal wala jibi nga mën ko gis ñu bëgg leen teg yéen jaa ngeen jëf